tolluwaayu wér-gu-yaram mu kii di président Ousmane Sonko ma ngay gën di yokk maanaam wér-gu-yaram ga ma ngay gën di néew doole li ko waral mooy fukki fan séngam yi mu am lekkul ministre bi nag di Madior Ismaïla Fall wala Ismaïla Madior Fall am na kàddu yu mu fi waxoon te xam la ni kii di président Ousmane Sonko ndékki na samedi nangam ak nangam waaye metre maître door Ly di avocat Ousmane Sonko te placé nag ngir mën a wax dëgg-dëgg Euh, ci euh, mbiri Ousmane Sonko xam la na ni loole daanaka safaanoo na ak li nga xam ni moo am Juan Branco tamit ngeen gis ko noonu Branco fële ca France tey mu jàkkaarloog taskatu xibaar yi dawul benn question nag moom gone gi am fii di toog jàkkaarloog taskatu xibaar yi ne ci àdduna wala ngal kàpp ñu tas ay waxam nag ba mu besaaroo ba kenn kum ci man di doon war ngaa xam li tax mu jëf-jëf ji ak taxawaay bi nga xam ni am na ko ci kii di président Ousmane Sonko mu nekk taxawaay boo xam ni uh, bu am solo la ndeke gone gi xam-xam rek uh, la feese bu ñu dellusiwaatee fii ci Sénégal président Ousmane Sonko mi nekk fële ca uh, fii ci hôpital principal ba nga xam ne ña ngay coytu ak yaramam te ñi nga xam ne ñooy doctor yi nekk ci biir kaso bi docteur yooyu moo ànd ak ñoom mayuñu ko dara ngir mën a coytu yaramam ba lépp loo xam ni xeetoon na ci wér yaram gu mucc ayib. moom mii di yaakaari ndaw ji du ko ndaw tey du ko xam ne daanaka war na noo salfaañe ak am ak yelleefam moo tax docteur yi topp nañ ko ñu ngi koy coytu bu baax a baax moom mii di président Ousmane Sonko ah, bu ngeen déggee ñu ne président Ousmane Sonko ndax un jour ah, mën naa ñëw kàddu yooye nekk amin bu boobaa ah, da koy nekk kon moo tax ñuy gëstu ay gëstu leen ko indi ci moom foofu la mbir mi toll mi ngi eh, ci jàmm ak salaam donte am na yoon ci wax yoo xam ne daanaka ci wér-gu-yaramam jékkul jaadu ndax nit ki kenn kum ci man di doon sa wér-gu-yaram dañ la ko war a mën a sàmmal fekk bëggu ko génne ndax maanaam secret médical war naa am ci kenn kum ci man di doon lépp daal liñ ci amal solo daanaka mooy ñaanal ko jàmm ak salaam jàmmam mooy jàmmi Sénégal bu ko defee bu amee jàmm ñëpp am jàmm Sénégal am jàmm euh, gars yi mën a dàbbar ñi